إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ñu ngi seede ne yàlla rek moo yeyoo ñu koy jaamu di seede ne kim yónni woon ci ñun di yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam moom dongoo yeyoo jàngale nañuy jaamoo yàlla ñi ngi ñaan yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy topp ba ila yawmi din gannaaw loolu mbokk suñu xutba tey bi mooy fàttali mbir boo màgg boo xam ni lu ëpp ci doomu aadama yi duñ koy bàyyi xel te mooy taxawaay bi nga xam ni malaaka yi borom bi ñi ngi koy taxaw ci ñun ey yow mbokk julit xamal ne sa borom yàlla day mooy ki ñàkk kumpa ci ay jaamam nee na amul benn mbir boo xam ne yaa nga ca lu baax la wala lu bon la amul fay toog di jàng alquran amul benn jëf booy def lu dul ñu ni yàlla ñi ngi la tiim di la seetaan ca jëf jooje sa borom yàlla dara du ko rëcc ci liy xew ci asamaan yi wala ci biir suuf loolee bu tuuti woon ne pepp suufu poussière it wala lu ko gën a tuuti suñu borom nee na lépp xam naa ko lépp bind naa ko suñu borom yàlla moo ñu bind indi ñu ci aw kaw suuf ku nekk mu nattoo la lam la nattoo ci ay at ñee mu nattoo leen ñaar fukki at ñee ñeen fukk ñee juróom benn fukk ñee téeméer waaye lu mu yàgg yàgg loolu day jeex gannaaw ba nag suñu borom yàlla daje nañu netti li ñu liñ doon def ci kaw suuf su ko defee yow jullit ndax yàlla li ñuy jëf da koo xam ca foofu la ko xami déedéet suñu borom yàlla muy aji bind ji mooy ki xam lépp loo xam ne xew na ak li amagul naka lay demee dara réeru ko looloo tax ba mbokk jullit suñu borom yàlla subhanahu wa taala gis nañu ne day ba nga xamee ni nii dogu na ci bind asamaan yi ak suuf bindoon na lépp lu ciy xew juróom fukki junni at avant loolu di xew masalan tey jii ñu nekk ci àjjuma ji nga xam ne moom la ñuy jàpp ne mooy bis bu njëkk ci li nga xamee ni nii mooy li ñuy tuddee rakkaati gàmmu fii nga xam ne mooy masjid saad ibnu abi waqaas mboolem ña nga xamee ni nii dañu fa nar a daje di julli juma suñu borom yàlla bindoon na ko juróom fukki junni at avant muy bind asamaan ak suuf lii mooy la nga xam ne julli da ko war a gëm waaye ndax borom bi dana doyloo loolu rek ngir àtte ci ay jaamam déedéet borom boobee dañoo boole ak i malaaka malaaka yooyee ñëw nekk ay seede ci suñu xaw borom bi nee na am na ci yéen ñu leen di wattu ay la xaafisin di wattu seeni jëf di wattu seeni wax borom bi nee na ñu tedd lañu duñu la duural mukk loo deful duñ la wàññil mukk loo def borom bi nee na xam nañ la ngeen di jëf looloo tax ba yow jullit ngal la waaye foo toog xamal ne lu mu néew néew ñaari malaaka ñi ngi ma séq ay yéen ñaar ñiy waxtaan xam leen ne ñeenti malaaka ñi ngi leen wër ay yéen fukk yi toog xam leen ne ñaar fukki malaaka ñi ngi leen wër borom bi nee na xam nañ li ngeen di wax te nee na amul benn kaddu buy génn ci yéen lu dul bind nañ ko mbokk negam kaddu yo lañ dul bàyyi waxumaa nag la nga xam ne moom mooy jëf ya su ko defee borom boobu jalla wa ala da ngay gis ne bu jamonoy fajar jotee malaaka yooyu fanaanoon ak ñun daañ yéeg ca borom ba gaaral ko la nga xam ne moom la jaam yi defoon ne ko kat lii la Moodu Njaay liggéey tey ci bëccëg ci guddig bi lii la Fat Caam liggéey guddig bi guddig bi gannaaw ba malaaka yooyu ñëwoon ca fajar bu takkusaan jotee ñu yéeg ci borom bi daal di koy xamal la jaamam yi di def loolee bis bu nekk lay doon gannaaw ba it yonent bi alayhi salaam nee na li jaam bi def ci semaine bi altine bu nekk malaaka yi dañ ko tënk daal di koy gaaral borom bi na ko sa jaam diw dey diggante alxames ak altine tey jii lii la fi liggéey bu alxamesee daan tënk la nga liggéey ne ay yàlla sa jaam diw dey altine ba alxames tey lii la fi liggéey looloo tax ba mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari woon lool di woor altine ak alxames bañ ko laajee mu ne bis la yoo xam ne dañuy gaaral borom bi jëfi jaam yi man nag dama bëgg suñuy gaaral samay jëf fekk dama ànd ak koor waaye mbokk même bu dul koor même bu dee bokkoo ca ña woor xamal ne borom xam-xam yu jëkk ya day dañ daan bàyyi xel lii di altine dañ daan bàyyi xel lii di alxames def ko bisub toroxlu ngiree la ci yonent bi alayhi salaam wax nee na keroog yàlla dana jéggal mboolem ay jaamam altine bu nekk ak alxames bu nekk lu dul jaam ya koy bokkaale wala jaam ya am noonu seen diggante mu ne ñii na ngeen leen xaar ba baa ñuy juboo seen noonoo googu ay yow mbokk julit xamal ne noonu ngay nekke amul bis bu yàlla sàkk lu dul feesal nga ñaari page page ba nga liggéey ci suba ak ba nga liggéey ci ngoon mu nekk benn téere bu mag bu lay xaar yowmal qiyaama soo ñëwee borom bi subhanahu wa taala def ko ab téere téere boobee bu dee lu baax la ñu daal di la koy jox sa loxo ndeyjoor daal di la koy boole ak yow bu dee lu bon la ñu jox la sa loxo tey càmmooñ daal di la koy boole ak yow ne la nag tey yow xoolal say résultat yow yaay xool ana ana foo jëm su ko defee jaam bu baax bi heure bu xoolee ab téeréem gis la ca nekkoon ci jëf lu baax ak la ko borom bi signé ci jéggal ak yërmande fu ne mu wër fa ay mbokkam xool leen man day bokk naa ci ñi nga xam ne dañoo texe yal na yàlla boole ñu ca amma bu dee dafa jaaruloon fa neex yàlla ba gis résultat am gis merum yàlla ak rëbbum yàlla ga nekk ci téere ba su boobaa mu xam ne alkaanga ñeel na ko muy nekk di rëccu ne way ay bi la téere amul lenn loo xam ne ñi ngi ko doon def lu dul ne ndekete mi ngi nekkoon di ko wattu suñu borom yàlla mu ne ahsaahu llahu wa nasu ak bari woon njombe yuñ def fàtte ko te borom bi yàlla moom mi ngi leen ko doon wattul lii mbokk day tax ba ku nekk ci ñun ngal la way na bàyyi xel la nga xamee ne nii moom moo koy xaar yowmal qiyaama mbokk jëfi doomu aadama yi ñu yàlla di attee mbir yu baree bari la ngal la waay bàyyi la sa xol bu baax lii ma lay wax nga sóoraale ko sa kemtalal kattan suñu borom yàlla bépp jaam boo xamee ne nii daa jóg jëm ci lu baax yàlla dogal ngante am ba sottiwul aka bari woon ñu waajoon masala ne dañuy aji ji màkk corona ñoo xañ leen ko aka bari ñu waajoon ne da ngay dem julli ji mbooloo ca jàkka ja ba nga ñëwee fekk julli nañ ba dem ak ñu bari ñu waajoon ne koor gi maa ngi koy waajal yàlla indi ay ngant bépp jëf bu baax boo dogu woon pour def ko ngant am yàlla dalay bindal jëf jooje yàlla dalay bindal jëf jooje loolee jullit da ko war a xam looloo tax fu mu toll di war a yéene lu baax xoolal misaal bi ci yonent bi alayhi salaam joxe keroog ba mu demee xare bi mujj xare ca mooy xare tabu ñaar fukki fan sallallahu alayhi wa sallam def na ko ci désertu Arabie saoudite ànd ki sahabaam coono bu ne daj ñu daj ko fa ba suñu borom yàlla sax ne am na saaba yoo xam ne seen xol xaw naa jëng ndax nattu yoonam tare ba ñuy ñibbisi ba seen madina yonent bi alayhi salaam ne leen moo ne day am na ñoo xam ne ña nga biir Madina mboolem tuyaaba dañu am suñu xare bi yàlla bindal na leen ko sahaaba yi ne ko ah te ñoom ñi ngi Madina yonent bi ne waaw xabasahumul uzr na am la ko waral mooy ngant rek moo tee ñu ñëw bu dul woon a ngant ba leen yàlla teg ci feebar wala leneen ñi nga àndoon ak ñun kon yàlla da leen di bindal tuyaaba boobee mbokk nga bàyyi xel loolu bu baax waaye mbokk dilit contraire ba itamit koo xam ne daa dogu woon jëm ci lu bon gannaaw ba mu daa di xalaat digganteem ak boroomam bàyyi ko ca yàlla tax dogu woon nga dem pour njaaloo kees gi dogu woon nga pour jël ci la nga xamee ne mooy sàngara bi lépp loo xam ne lu ban loo naroon a def waaye sa xel ne yar ci yàlla nga bàyyi ko ci yàlla tax borom bi na malaaka yi bindal leen ko ko muy tuyaaba amma bu dee da ngaa dogu ci def lu bon yàlla moo indi ngantam ba loolu sottiwul waaye yow dogu ga ma nga ànd ak yow borom bi nee na bindal leen ko lu bon loolee yonent bi alayhi salaam te la doon joxe misaal mu ne ñaari julit heure buñ dajee ak seeni arme kii jóg ngir rey mbokku julitam kee jóg ngir rey mbokku julitam ki rey julit bi sawara la jëm ki ñuy rey moom it sawara la jëm saxaaba yi na ko ah yum yàlla yónni ki rey mbokku julitam dem sawara loolu moom xam nañ ko waaye ki ñuy rey lu tax muy dem sawara mu ne kaana xarisan ala qatli axihi ba muy dee mi ngi yóbbaale yéene bëggoon a rey mbokku julitam loolu kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax du ne yàlla li ñuy def rek la ñuy li la ñuy bindal waaye lépp lu ñu dogu mu yéene bu sell ca tuyaaba daan ñu ko bindal lépp lu ñu dogu muy bakkaar bu bon daan ñu ko bindal loolee ku ne ci ñun war caa bàyyi xel gannaaw ba loolu mbokk jullit xamal ne yonent bi alayhi salaam daana wax ne man daa ila ila ila hudan kaana lahu min ajri misla ujuri man tabi'ahu ila yawmi alqiyama képp koo xam ne da ngaa wootee ci lu baax jàngale lu baax jàngale nekk ñaari façon da nga koo jàngale ci say wax wala da nga koo jàngale ci sa comportement aka bari ay xale yu jigéen yu xëy du muuru lan moo tax ñu muuru mooy dañoo dëkk ak ay xale yu jigéen na ñoom ñu gis leen ñu ngiy muuru ba ñuy muuroo loolu yokku na leen personnalité loolu yokku na leen ak fegu ñoom it ñu décidé muuru xale bu jigéen bee tax ñu muuru musul wax ak ñoom waaye gis ngeen mboolem tuyaabay ke yàlla da ko koy bindal looloo tax yow jurit da ngaa war a gëm ni foo toll da ngaa war a nekk di woote sa làmmiñ waaye di woote ca la nga xam ne muy say jëf tey jii bari na ñu xemmem lislaam ba dugg ci dañoo gis comportement ay julit moo leen ci dugal bari na ñu bañ lislaam fekk ne dañoo dëkk ak julit yu xamul seen diine ñu jàpp ne bu dee lii mooy lislaam moom doy na sëkk kooke yaa ngay tëj buntub yërmaande ñeel doomu aadama yi képp koo jàngal lu baax loolee ak lu mu tuuti tuuti xamal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla subhanahu wa taala dalay bindal loolu waaye képp koo jàngal lu bon ki nga xam ne moo jëkk osé col-col yu bon yii ñuy def képp ku ko roy ci ñoom ba ilaa yumi diin bakkaar ba dañ ko koy bindal loolee na doon da koo wax wala loolee na doon da koo jëf loola tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne nga fexoon ba yàlla jubal ci yow benn nit góor la wala jigéen moo gënoon nga am àdduna ak li ci biiram ndax maadaama nekkoon na ci yoonu réer yaa wax ak moom ba mu dellu si ba baa muy dee lu mu liggéey yàlla dala koy bindal tuyaaba ku mu jàngal yàlla bindal la ko tuyaaba mi ngi noonu même bu dee ne du yow yaa ko dugal ci lislaam waaye mbokkum jullit la rek boo xam ne xamul woon gis nga ko rek muy naane càmmooñam nga ne ko sëñ bi jullit du naane càmmooñ day jor lay naane loolee fu mu yëkkatee kaas naanate ak nday joram ñu bindal la ko tuyaaba bépp soxna boo xam ne naxante ak moom ba mu bàyyi col yu bon yi commencé muuru ba ilaa yawmi diin tuyaaba jam nga lay xaar sa dëkkandoo bi nga dëkkal ay yow diw néeg bi yàlla bi jàkk ji muy néegu yàlla tey ngaa ñëw di fa julli heure bu yëkkatee jéego jëm jàkka ja ba ilaa yawmi diin yàlla dala koy bindal lii mbokk jullit da ca war a bàyyi xel bu baax gannaaw loolu mbokk jullit war ngaa bàyyi xelit ne daañ le bindal la nga xamee ne nii danga caa ñee doomu aadama yonent bi alayhi salaam nee na adduna ñeenti nit ñooy fi nekk kenn ki mooy ki yàlla may xam-xam xam-xam ba mu koy jëfee di ko jàngale ngeen ne ay waay aka nee xool ma xam li diw xam waay bay mën a taxawe li muy taxawe nee na tuyaaba de yàlla bindal kookee dana la bindal lu mel noonu yéenay ànd yowmal qiyaama gannaaw ba ñaareel bi mooy ki nga xamee ni nii yàlla da ko wërsëgal alal alal ja fu mu toll fu mu gis fu ngërëmal yàlla nekk mu jël alal di dugal ca nga koy ñee aka ne xool ma am li diw am ndax ngir immeuble am yi wala ngir katkatam yi wala ngir toolam yi laa aka ne xool ma am li diw am ba nii muy jële alalam di ko delloo ci liggéeyub yàlla manit ma mënoon a am loolu mbokk ñeneen ñaar ña mooy ñan mooy waajee gis koo xamee ni nii dafa am ay pexe di ko jëfandikoo ba am adduna adduna boobee mu daal di koy jëfandikoo ci bànneexu bakkanam ak i bakkaar yow nga ñeewoon ko ci loolu bëggoon a am xam la mu xam wala am la mu am bay def lu muy def yéen ñaar yéenay ànd ca la nga xam ne nii mooy bakkaar ba yéenay ànd ca la nga xam ne mooy mbugal ba ay yow mbokk julit xamal ne bokk na ci mbaaxug yàlla bépp jëf boo xam ne yaa ngi nekkoon di ko jëf saxal jëf boobee yàlla dogal nga feebar heure bu waxtu jëf ko jotee suñu borom danaan malaaka yi sama jaam bii day aada woo woon na di def nangam feebar bi ma ko teg moo tee munu ko bindal leen ko tuyaaba boobee heure boo nekkee ci tukki mboolem tuyaaba ja nga doon def sa biir kër ci ay naafila ba nga tukkee xat-xat ya tax ba mënoo ko borom bi na ah malaaka yi sama jaam bii day daana taxewa nangam loolee bindal leen ko ko comme ay tuyaaba lii lépp mbokk mbaaxug yàlla la goo xamee ni nii jullit heure bu ko xamee dafay doon koo xam ne day góorgóorlu di xool ay jëfam lu mën a doon ay yow mbokk jullit xamal ne façon jëf yi ñu la wax ci façon tuyaaba yi ci façon bàkkaar yi lépp mi ngi lay xaar yowmal qiyaama soo ñëwee nag lépp ñu jëmbal ko ci ay poids poids yooyee ñu yóbbu ko ci benn balance balance boo xam ne du bàyyi misqaala zorra mbokk balance yi àdduna dafa wuute soo demee port gis ay balance yoo xam ne ay dizaine de tonnes lay peser nga dem foo xam ne nii day peser ay cent kilos nga dem léegi ci tëgg bi gis sa balance yoo xam ne ay grammes lay peser amma balance yawmal qiyaama zarra lay peser mooy lu gën a tuuti ci poussière loolee du ko bàyyi gannaaw borom bi nag nee na koo xam ne say jëf lu baax gën naa diis say jëf lu bon lu toll ne pënd poussière yow àddina nga jëm koo xam ne say jëf yu bon gën naa diis say jëf yu baax lu toll ne pënd poussière yow sawara nga jëm looloo tax ba jullit du xeeb dara ci tuyaaba waaye jullit du xeeb dara ci bakkaar fu mu mën a toll mi ngi sakku lu koy jural ngërëmal yàlla ca nga la waaye maa ngi leen di bégal am na yu ca yomb lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ay waaye ñaari kàddoo ngi nii yomb na lool ci làmmiñ yàlla bëgg ko lool tem dis gann ca balance bi si penc mooy subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi gannaaw ba subhanallahi alazim loolee la ñuy wax ci mboolem askar yi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah astaghfirullah allahumma salli ala muhammadin wa sallim ngal na waay mbokk yooyu nga xam ne du la jural benn dépense du la jural benn coono ci li gën a mën a diisal balance bi si penc ci la bokk waaye nag nga góorgóorlu si kemtaleel kattan bokk julit xam ne noonee la la jëf yi mën a jëriñe noonee la la bakkaar yi mën a alage sahaaba bii di sawbaan nee na toog nañoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne day sama xeet day dana am ñuy ñëw yowmal qiyaama daañu indi tuyaaba ju toll na ay montagne waaye lépp suñu borom yàlla da koy def poussière ñu ne ko ah yu muy yàlla yónni lu waral loolu mu ne ay nit lañu ñoo xamee ni nii day heure bu ñu masaan wéet ak li yàlla araamal daal di koy jalgati seen ragal yàlla ak lañ doon def mooy ci biti nit ñi waaye fu ñu wéet jalgati la nga xam ne moom la yàlla tere lii mbokk kon ñu bàyyi ci xel nu ñuy fexee ba faggu ba tuyaaba yu bari waaye nu ñuy fexee ba sàmm ko ay waay yow julit góor góorlul xam ne yàlla dalaa bind waaye dalaa bindal ay cër dara taxul mu bindal la ko lu dul nga nga jaamu ko làmmiñ wii ngir nga jaamu yàlla la di ci tudd yàlla di ciy def lu baax bët yii la yàlla may dala koo may ngir nga ciy xool kawtee fi yàlla yi di ko xool la yàlla gërëm heure boo gisee lu yàlla araamal nga daal di koy tëj nopp yi waroo caas déglu lu dul lu neex yàlla la nga xam ne mooy loxo yi waroo liggéey lu dul lu neex yàlla doo jël lu dul neex yàlla sa tànk bi doo ko yëkkati mukk di ko jëmee lu dul fu neex yàlla ndax yàllaa ko bind xañ ko des millions yow jox la ko bind ko lu dul nga jëfandikoo ko jaamoo ko sa xol bi foo toll nga xool loo cay bëgg lépp looy bëgg xoolal ndax lii ma bëgg yàlla bëgg na ko lépp looy bañ xoolal ndax lii ma bañ yàlla bëgg na ko di xalaat ci yàlla di xalaat xalaat ci kawtee fi yàlla di xalaat ci dee di xalaat heure boo daje ak sa boroom mbokk lii rek ñaa féetewoo lii ñooy borom xel yi ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla taaral ngëm suñu biir xol yal nañu yàlla xamal suñu diine yal nañu wërsëgal ñu dund suñu diine yal na yàlla jéggal ñu suñuy bakkaar yal na yàlla jéggal ñu ci yërëm ñu yal na yàlla musal ñu ci pexey cheytaan yal na yàlla musal ñu suñu ay bakkan yal na yàlla musal ñu ci pexey naafiq yi yéeféer yi bëgg a détourner suñu ndaw ñi yal na yàlla delloo seen pexe ci seen kaw yal na yàlla yëkkati lislaam yëkkati mboolem ñooñu lislaam allahuma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين